waaw ku ne jël lekkam ku ne jël lekkam voilà yow mu ñu noonu <laughs> waaye ñaanal ñëpp rek Pape Cheikh comme ne nga parrain yi du ma leen tudd ak marraine yi mm. Mm. yàlla baax na amul problème amul problème adduna amul solo mm. ah kado yaa ngi ñëw dem grand théâtre parrain ak marraine doo maa ngi politique <laughs> mel ni Bougane Gueye Dany wala Ousmane Sonko fi mu ne ci la non non dafa tudd maa ngi waaj maa ngi waaj grand théâtre grand théâtre waaw incha allah jàppaguma dat mais maa ngi waaj bilaay boo wootee mu fees maa ngi koy waaj wax sénégalais yëpp profité si jour anniversaire bi mm. ne leen maa ngi waaj grand théâtre jërëjëf Seck jërëjëf Seck kuy tëgg Pape Diouf wala sama sama tamit tey la anniversaire am Dout Sow euh, Dout Sow moom sama xarit la Ali Abdou Demba Kasum Omar Bara Diallo sa maam taaw la Macky sa maam taaw la moom maam maamam dañ ko tuddee pont te ñun ñun ñëpp suñu benn maam am tuddee wuñ ko pont <laughs> waaw pont wu Kolda moom maamam lañ ko tuddee euh, loolu rek doy na woy voilà mu baax loolu bëgg ma moom Dut Saw ku doy waar la nag waaye man noonu laa ko bëggee man damaa bëgg rek dama bëgg te xaw ma lu tax ma bëgg Dut Saw waaw man xaw ma xaw ma daal man maa ko bëgg rek ah dafa am disponibilité. waaw daf ma fonk daf ma fonk. donc Doudou Sow dafa baax lool. nit ku baax la nit ku baax la. nangoo liggéey. nangoo liggéey waaw ñame daw. information à temps. <laughs> waaw. c'est très important information à temps dafa voilà moom régisseur la fii ci télévision Futur Média ñu ngi koy souhaiter un happy birthday de la part de tous ses collègues. Abdou Koumba mi ci Fouta itam tey la anniversaire am muy Adjatou Ngoné Ndour. gàncax bu mu ci Gambie bi ci Nioro. Mm. newul su ma doon góor de. déedéet déedéet déedéet. te jom ji tamit lëkkuwu ci jomu kenn. wallaay si rek soo gi Alé Ndiaye. dafa fexe ba ba ba bàyyi empreinte am. Mm. ci réew mi. Mm-hmm. yaru. Mm. am diine. Mm. gore. fonk ay woy juram. nangoo liggéey. ba pare nag yu ba pare nag yóbbu ba pare am ngërëmal jëkkëram. Mm-hmm. loolu nag bu tàbbee ci yow. Mm-hmm. dëgg-dëgg noo mel ci réew mi waru jaaxal kenn wallaay ni borom këram bu baax ah ba dem monsieur Kouyaté bu ah dellu si waat du defaraat toogaayam du defaraat toogaayam déedéet ba pare dafa yiw moom ngoone dafa yiw yaru yiw gi sax ci la nekkoon hmm. waaye bi ko ci kër wanee ginnaaw da koo dolli waaw bopp bi doo ko gis. Euh, ñu ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire. c'est de la part de toute sa famille mu bëgg ma. Mhm. waaw ndeket dañoo bokk jour anniversaire. Ah. mais ak oustaz Mor Thiam aussi. Uh-huh, uh-huh. tey la moom tamit ci Mor may ñu ñu tëj ci Ngoné. sa sa sa sa ay message kenn dagg ko bul dagg fi Ngoné tey ñu àggale ci Ngoné ba pare ci Ngoné. voilà doog a ñëw ci euh, Mor bu baax moom <laughs> donc évidemment <laughs> joyeux anniversaire à Ngoné Ndour de la part de Abindour moom tamit yónnee na message bu gudd bu daw yaram. Mhm. Euh, nee na mu ngi ñaanal Ngone euh, du caagin bi ñoo bokk rek waaye Ngone euh, nit du ko gënut. Mhm. donc ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire c'est de la part aussi de Bouba Ndour moom tamit nee mu ngi ñaanal jigéenam bu baax bi nga xam ne ni jom rek la feese dell donc Ngone Kouyaté happy birthday oustaz Mor Thiam itam ñu ngi koy ñaanal gudd fa ak wér yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam moom itam xam la feese dell mhm. ESD yi moom euh, oustaz Mor Thiam am naa itam jarbaat boo xamante ni tey la anniversaire am muy Kumba Wadd alors Kumba Wadd tey ci bisa bi euh, ñu ngi koy ñaanal euh, gudd fan ak wér yaayam moo fi jaar euh, di euh, Mounas Ndiaye ak nijaayam Paco Pata Paco bu euh, bu théâtre bi waaye Soleil Levant ah, voilà Paco xam nga sama mbokk la li ñu waroon am yaram yëpp moo ko jël <laughs> li ma waroon Pata man ak sama suñu waa kër yëpp Paco ko Pata war nga tuddee ko Paco Pata ni ñay Sénégal na amul respect amul aucun discipline <laughs> aucun considération Paco Ndiaye euh, donc Papa Ndiaye pako euh, di souhaiter donc joyeux anniversaire jarda jarbaatam Euh, Adja Roxee Jaxate maam la itam euh, ci Kumba euh, Wade ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire c'est de la part de ay maamam ñoom Mama Fifi ñoom Tata Adja Diallo Thiès ñoom Tata Lika toute la famille Rama Diallo ak ñëpp ñu ngi koy ñaanal donc joyeux anniversaire à Kumba Wade yaayam Mounas Ndiaye di ko souhaiter un happy birthday Et puis, joyeux anniversaire à qui d'autre euh, Fatou Tchaba Euh, donc faatu Thiaba euh, tey ji le anniversaire am ça et être compliqué parce que damay dugg fii génn fële ci message yu bëri yi nga xamante ni euh, yéen a ngi koy yónnee donc Fatou Thiaba Kouaté Fatou Thiaba Kouaté beaucoup de réussite santé c'est de la part de sa maman Alimatou Ndiaye Alimatou nag sama jigéen la yaf madame Ciss Fanta Sanoxo nekk Sénélec Vincent xam na li ma wax donc suñu jarbaat bi di Fatou Thiaba Kouaté ñu ngi koy ñaanal tey ci bisam bi c'est de la part de sa maman Alimatu Ndiaye Alimatu Sadia Ndiaye euh, ak ki nga xam ne ni euh, mooy euh, papam Karim Kouaté depuis France c'est notre petite nièce c'est de la part aussi de sa tata préférée madame Ciss Yaf Fanta Sanokho nekk Sénélec on l'embrasse d'ailleurs très fort Papa Cissé euh, moom euh, ñu ngi koy ñaanal tey jii la bésam euh, yaayam Jooda Mbay moo fi jaar moom di doom itam ci Kumba Sira Mbay surtout Mbaye la ak Mbay donc joyeux anniversaire Papa Cissé c'est de de sa maman Kumba Cissé Mbay madame Cissé ak papam Matar Cissé moom nag papa mooy chéri mère Mbaye maamam di sama yaay di sunu xarit tey jii ci bisam bi ñu ngi koy souhaiter um bon anniversaire muy papa euh, Cissé madame Sow bu euh, Benga tey la anniversaire am euh, c'est de la part de Thiaba Diagne Thiaba Diagne nee mu ngi koy béggee bu baax di sœuru Thiaba Diagne madame le maire donc madam Sow Seynabou Benga happy birthday Awa Seck moom magu sama rakk la Adjaratou Rama Diaw donc Awa Seck ñu ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire yow min nga dama jaw waaw Rama waaw xam nga ay plateau am tey ci sa anniversaire bi waaw waaw démb ma moom da lay livré ba livré la mburaake sama rakk jooju démb rek maa nga koy message borom déris traiteur man moo ma gënal Sophie man daal Rama Jaw moo ma gënal Sophie te barki démb rek leneen laa wax dama ne Sophie ba gënal Rama Jaw bon li jënti ma àggaleeg Awa Seck évidemment donc Awa Seck c'est la grande sœur à ah, Adjaratou ma Diaw délice traiteur mm. euh, mu ngi koy souhaiter un bon anniversaire di ko ñaanal euh, Awa Seck beaucoup de bonheur de la part de toute la famille euh, ñëpp a ngi lay bégee ak personnel bu délis traiteur Cheikh Ahmed Tidiane tamit tey la anniversaire moom suñu doom la xam nga surtout nen na ko mel la Mm. doomu Laurental la de Laurental bu euh, euh, bu ajaratu nen ne commune bu Luxembourg euh, donc moom Chamet Tidiane Tall maamam c'est ñaari maamam yëpp mm-hmm. ay homme de homme de média lañu mm-hmm. mu yaayam mu yaay muy ajaratu nen ne commune ak maamam bu góor Jules Tall ancien journaliste ah, nekkoon Ndar waaw xam nga euh, euh, maamam nag vraiment def na fi lu ne. wallaay ne comme wallaay wallaay kenn mënu tudd réew mi. Mm-hmm. ba mu jeex te doo ko ci boole te doo ko ci boole. wallaahi wallaahi. soo ko fekkee tam Paris ma tamit macha allah mu nekk nit ñu yàlla baaxal. Mm. ak doomam jooju nga xam ne macha allah. mu bari mu lay accueillir. dafa baax dafa baax bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg. bëgg yaa baax daal wallaahi wallaahi vraiment kon de doom ji macha allah. wallaahi waaye nag mënuñu ko sóoralu directement. waaw quand même <laughs> non mais c'est pas grave de toute façon suñu doom la ñu ngi koy ñaanal donc Cheikh Tidiane Tall joyeux anniversaire c'est de la part de papa c'est aussi de la part de maman ak euh, ta grand-mère Mami Néné Komé euh, fii ci Sénégal euh, di la souhaiter un happy birthday joyeux anniversaire aussi à bébé Polel Achoura Dieng doomu Ousmane Noël Dieng la Kouthia moo fi jaar nee na mu ngi ñaanal bu baax jarbaatam bi nga xam ne ni euh, bàyyam ba kenn gënu ko di Ousmane Noël Dieng Ousmane Noël nag ñu ngi koy bégee bu baax euh, di souhaiter donc joyeux anniversaire à bébé Paulel euh, Paulel Assoura un happy birthday c'est surtout de la part de El Hadj Abo Bilal di ko souhaiter un bon anniversaire joyeux anniversaire à Adja Yafati Laye euh, depuis Yoff euh, Yoff Layeen euh, c'est de la part de Libas Laye donc Libas Laye moo koy souhaiter un happy euh, birthday joyeux anniversaire à ma fille chérie bébé Diara Laye Sarr euh, c'est de la part de ta maman madame Sarr Yacine Gueye ak toute la famille Saré Gueye longue vie on te souhaite joyeux anniversaire à Bachir c'est de la part de Pape Ngala Mbaye mami ak toute la famille Pape Ngala Mbaye xanaa moom Ngala ñoo bokk turando moom Ngala ñag Ngala mu Ndioufa donc euh, Bachir de la part de Pape Ngala Mbaye ak Mamek toute la famille. joyeux anniversaire à Mame Diarra Seck c'est de la part de Ahmadou Kounta Ahmadou Kounta di ko souhaiter donc un bon anniversaire. joyeux anniversaire à Ngoné Ndour message boobu itam jàll na c'est de la part de toute la famille euh, ñu ngi koy béggee euh, bu baax suma euh, beneen doom tey la anniversaire muy mama Teni wala mama Tene voilà mama Teni mmh. moom déjà jarbaatu Ngoné Ndour la aussi ba noppi suñu jarbaat di sama doomu bopp c'est c'est un c'est un amour sama sama doomu xol la tellement on l'admire tellement on l'aime voilà c'est une petite princesse donc madame Kane Diallo maman Téné euh, bu Prince Art ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire euh, c'est de la part de toute la famille euh, bu Ngoné ndu de la part aussi de famille bi nga xam ne am nga ko fii ci télévision Futur Média Pape Doudou mhm. Mame Ngala ak Didi ak ñun ñi ñëpp ñu ngi lay souhaiter un happy birthday joyeux anniversaire à Petit Samaké de son vrai nom Mamadou Samaké c'est de la part de Ndiémé Diop qui te souhaite beaucoup de bonheur joyeux anniversaire à la très belle Jojo Ndiaye l'amie de son papa tout le bonheur du monde euh, ak beaucoup de bonnes choses Joyeux anniversaire à bébé Mohamed. Euh, je te souhaite tout le bonheur du monde mm. beaucoup de succès. Euh, je t'aime mon fils. C'est de la part de maman Maguette. kii mooy doomu borom Massimo Shop Pape. Ah. Euh, doomu Maguette la bébé Mohamed ma koy souhaiter un joyeux a nekk bébé bu mignon ñëwee Sénégal jël ma rek takk ma xam nga comme si daf ma xam ay. ati at waaw mun na am nag rafet daf ma nopp na <laughs> donc bébé Mohamed guddal fan lool ba sa yaay ak sa papa fekkee sa njëriñ incha allah. c'est de la part aussi de sa maman euh, Maguette. Mm. Joyeux anniversaire à mon tendre époux, mon homme, mon ami, yes, mon mon nuro waale euh, papaay xale yi Al Hassan Kodumane. Okay. Mes vœux de bonheur à mes côtés. Là, c'est un message qui vient de sa femme, euh, ta femme Maïmouna Faye Mané. Euh, nekk service archive bu euh, Futur Média euh, moo lay souhaiter un bon anniversaire joyeux anniversaire à euh, voilà donc ça c'est le message ak photo bi joyeux anniversaire à Ndeye Fatou Mbaye c'est de la part de Koumbis Fall depuis Gibraltar euh, Koumbis Fall sama rakk defe naa de boobu la hmm. euh, donc mooy souhaiter joyeux anniversaire à Ndeye Fatou Mbaye euh, de la part de Koumbis Fall Koumbis Fall bu ajaratu ko du jaw ñu ngi koy nuyu nekk marché ngelaw Gibraltar rakku Lolo Fall yaayu petit papa joyeux anniversaire à madame Nying Seynabou Ndiaye doomu Siré Dia Euh, femmes de développement qui s'activent dans le social responsable APR à Thiès